أمهاته كذا تباء الذيات من الأم على نبي تات الهدي ما هو كذا تباء الذيات من الأم famanel na lahala alamatu alo ina azama Hatimalu sunnati tihi mijalatul imanina ala nabi wa alim. Ah, jogu faaman neena summa bunu awfin wasantun saabaya loxo yi kaw saabaya loxo yi kaw saabaya abubakar oh, saabaya abubakar oh, amu Bakar Rosa soppe Sëñ Babakar Si ku na bi jaral Sëñ Babakar ku mu jaral ay waay ku mu jaral ay dakkan yaw ku mu jaral ay waay ana ku bëgg nan ku na bi jaral ay waay ku mu jaral Babacar ku mu jaral ay waay ku mu jaral ay waay ku mu jaral يكون من جرى ليغتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ما ويلا يا رسول الله أيوة خبر بان مدينة أيوة إيمان الله إيمان يا رسول الله ajara magal ay dañ doon essayé rek salaamaaleykum inton du Sénégal di am mbégte chaque gàmm ñu toogal ko xam ne nag kenn dootu ko présenté Aboubacry Samb suñ koy wax nag mooy tàggkatu yonent bu mag boo xam ne temps yi euh, yàgg na mu ngi mi ngi mi ngi ñi xam nañ ko apprécier nañ ko ci réseaux sociaux yi ak fépp fu mu ta dem ma bàyyi la nga nekk internet yi ñuy seetaan waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa abnayhimu sibtayni ahla milwuda wa bi saabihi wa taabii na lawum fawum saadaatuna ahlul makarimi wa nada sayyiduna muhammad ay damaa ngi lay nuyu di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay ak euh, tabarakallahu euh, seen site internet bu am solo bi di Senego maa leen di ziar ak képp koo xamante ne rek yaa ngi suivre site euh, bi nga xamante ne moom mooy Senego di nuyu suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général di Tidiane di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam bu baax a baax a baax ak mboo mbooleem njabootam yi nga xamante ne ñu ngi ci ginnaawam mboolem xalifa généraux yi tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye di beral nuyoo sama sëriñ eh, sëriñ Maodo Sy ibnu Cheikh El Hadj bu Maam Cheikh xaaj mali Malick di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam di nuyu tabaarkallaahu suñu soppe yëpp yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan di ñu bégee eh, di la nuyuwaat bu baax a baax a baax Aïda mm-hmm. euh, comme ni ma ko waxee am mbégte di la dalal chaque gàmmu yu waxtaanee euh, tarixa bi di waxtaanee way way yi ngeen di def zikr yu neex yoo xam ne dañ koy dégg muy bégal xolu jaam yi euh, tey nag première question bi la doon laaj deux ans gàmmu ñu Aboubacry nan lay gàmmu ñaari at yi bokk bii ñëwagul mais at bee passé nan la ko gàmmu ak bii lan la ko fas yéene gàmmu jërëjëf déjà ci laaj bi euh, comme ni nga ko waxee c'est ça fait deux ans gàmmuwuñu parce que bii tamit gàmmu du amaat mais bon nañ ko namm nañ ko ndax euh, vraiment soppe yi fu nekk lañ daan jóge ñëw ci sa secteur di gàmmu si ñun ñëpp ñu daan daje benn kër daan daje benn bërëb muy Tiwaawan donc euh, manqué nañu bu baax a baax mais comme ni ñu koy waxee rek jàmm beex pexeem yàlla ak dogalam mbas wàcc si suñu kaw euh, te itam ñu am kilifa di Serigne Babacar Sy Mansour bu ne kenn du gàmm rek tabaarakallaahu am na fu wér fu mu ko teg ndax tabaarakallaahu ñoom euh, jege nañu jege nañu suñu borom jege joo xamante ne tabaarakallaahu lu ñu wax rek ñu duñ ci teg baat donc euh, namm nañ ko mais niñ ko daan amalee mooy yonent bi fu waay nekk mun nga koo màggal donc ay nit dañuy organiser gàmm seeni kër jël seen i précaution yëpp jël seeni i matuwaay euh, ñu ñëw fa bégal leen bu ñu fa jógee nag bu ñu bu ñu demee fii tey demaat fee demaat fële demaat feneen donc noonu daal lañu dañ doon amalee gàmmu gi euh, ren tamit tabaarkalaaw noonu la ñu koy defee ndax suñu ay soppe dañuy organiser ay gàmmu invité ñu donc ñun dañuy déplacé wu dem fekk ji leen bégal leen ci Yonent bi sallallahu alayhi su yonent bi euh, lan ngeen yaa ngi wax ne dangay dem ci kër yi ku la invité nga dem est-ce que di di dool tamit dina facile nga koy def tout le temps wala bokk euh, lan moo la gënoon nga dem Tivaouane gàmmoo ko fa wala déplacement yi moom moo gën. bon ñun lenn moo ñu gënaloon mooy ñu toog toog ci bërëb ñëpp fekk si ñu ñu gàmm mais euh, pexe amul pexe amul te yaakaar naa tamit yàlla soppe yu ñu dénk dafa bëri. donc tey même bu fekkee du fépp la ñu mën a matale dañuy jéem a euh, jéem a jaayante rek parce que yombul déjà da ngay way ak énergie bi nga ciy dépensé après dawalaat demaat ci sa beneen soppe wayalaat ko dawalaat demaat ci feneen dawalaat demaat ci feneen am loolu yombul euh, ñu toogoon ñëpp gàmmu euh, ñun moo ñu gënaloon mais daal fi mu ne nii moom kuy soppe rek moom dañuy dem bégal la daal en tout cas waaw c'est ça. décision xalif bi nag mu mu nekk loo xam ne ñi ñi xaaroon nañ ko xamoon nañu gàmm du am mais am ay taalibe yu ci yu ci yu ci xaw a frustré wu mën naa ko wax est-ce que décision kilifa taalibe war na ko commandé. bon personnellement man duma ci duma ci man duma ci commenté parce que ñu ñëpp dafa am fu ñu jokk muy tiwaawan te yaakaar naa boo nee kilifa rek nit sa kilifa lu mu def rek war na laa neex. sa kilifa lu mu def rek war na laa neex rawatina koo xamante ne ñun ñëpp kenn la ñuy tiitaroo muy muy euh, maam Cheikh El Hadj Malick donc Serigne Babacar Sy Mansour deretu Seydil Hadj Malick la waaw kon nag euh, ñun suñu kilifa la euh, damay faral di wax na nag Sénégal moom moo moom moo moom moo moom moo moom moo bizarre léegi ah nit ñi ràññeetuñu nit ñi xàmmeetuñu mais daal maa ngi leen di ñaan pour man jarul sax commentaire parce que tôt ou tard dañuy gàmmu ji waaw tôt ou tard dañuy gàmmu ji xëy na tamit cofeel moom mooy waral xëy na peut-être nit ñi di def yenn commentaires yi mais man daal maa ngi def benn appel pour wax daal bu kenn commenter waaw parce que tôt ou tard ñun ñëpp dañuy dellu bërëb ba nag dañoo am jumaa joo xamante ne tabaarakallaa ñun ñëpp yàqamti nañu dem gisi ji ko pourquoi pas ñu xaar hmm? euh, xëy na bu ñuy gàmmuwaat dina tombeek ñuy ubbi jumaa ji Serigne Babacar Sy Mansour taxaw di ko inaugurer ñun ñëpp ñu àndandoo ñu àndandoo ànd ak moom gunge ko mu tijji jumaa ji donc nag euh, pour man affaire bi méttiwul quoi parce que euh, nit foo nekk rek mën ngaa julli ci yonent bi sallallahu alayhi donc loolu daal appel boobu daal laa laa si laay laay lancé quoi. ki waral gàmm gi mooy waaye nag njëkk a gàmm Seydi Hadji Malick lay def sa xol boo koy way. laa ilaaha illallaah kookoy njaag Alaaji mooy njaag ni muy def sama xol xam nga. Euh, Seydi Hadj Malick man man man mënuma wax ci moom en fait li tax mënuma wax ci moom mooy tey euh, daf ñu leeralal lépp daf ñu leeralal ki nga xamante ne moo ñu indil Taysiir indil ñu xilaas indil ñu indil ñu indil ñu indil ñu indil ñu te li mu la indil yépp wanula boppam yàlla la la wan kooku ñun mënuñoo wax ci moom lu dul di ko sopp rek di ko yaakaar ndax nit koo xamante ne dafa ñaanoon yàlla bu ma yàlla bu kenn xàmmee samay taalibe ak sama njaboot nit kooku yaakaar naa ne euh, dimension am yaakaar naa for na lool lool lool lool donc Seydil Hadj Malick daal mooy nit koo xamante ne man man mënu maa wax ci moom waaw damay bàyyi nag ñu may waxal ci moom sama xol di sedd man man noonu laa ak di ko way. ak di ko way ban faloo bakkan muy ilimaan adéedéet bakkan daf ko daan aaye ko faw la muy dogaan miinal ko moom du mas lu wex seydi laañi maalik si baayu sëriñ si maalik jàppa taxoon lex yey lerax sujoota taxoon jabay melax mi noona yit da jaay bu sax cëram ya dootunu fanax kama abidin zaidin kama alimin wariin kam saalil waasilin lawla kama kaana baayu Sëriñ Babacar Si kam tansurul ilma kam takril duyuufa كم ترضي الإله وكم أشرت خيرا ننجول فاما دخائل لتي دخاتو إسي لمي سنغال ممو ديا وانيلي لروديني بايو سنبا بكرسي xanaa ba le be Sénégal Maodo yaa ne la ilaha illallah billahi waatna ayda ci barke baayu Serigne Babacar bu saa taxawee ñu xam ku yor rayu rayu dene لا اله الا الله عيد سما يا ونلرادي la ma waroon wax ci Seydil Hadj Malick yëpp woy wax na ko koo koy Seydil Hadj Malick mooy bi neex na trop suñu jàllee ci Seydi Hadji Malick gàmmu tamit dafa am koo xam ne nag moom la ñuy gën a ziyaar. ndeysaan. moom la ñuy gën a moom la ñu sopp instant moom ubbi xam loolu mooy sëñ Babacar Sy su ma la wax sa histoire ak sëñ Babacar Sy euh, jërëjëf ci laaj bi euh, sëriñ Babacar Sy sama histoire ak moom diggante maam ak sët la mu jëlee ma ci lëndëm indi ma ci leer tey bu ma demee ba toog fii gannaaw samay ñaanu wayjur sëriñ Babacar Sy la. Eh, sama histoire ak moom du dara lu dul bi ma ràññee moom laa njëkk a gis maanaam c'est-à-dire eh, na ma ko yàgg di waxee rek orientation la boo xamante ne ci sama yaay la jóge ma gis ko rek am cofeel ci moom lool lool lool donc eh, sama histoire ak moom yaakaar naa su ma koy su ma koy wax su ma koy expliquer fii du jeex waaw du jeex parce que xam nga nit parfois dina dina dina nekk ak nit naan diw sagal na ko mais man Serigne Babacar si daf ma sagal parce que tey teraanga bu mu mënti am ci àdduna moom moom moo tax donc nag euh, sama histoire moom yaakaar naa su ma ko expliqué daal du jeex waa voilà. mais mais nga gis ko soxla après nga gis suñu borom fajal la soxla boobu. waaw du benn yoon du ñaari yoon sëriñ Babacar si saa yu ma ko woowee mu si ma saa yu ma ko woowee mu wuy si ma am naa benn amoon naa am naa benn anecdote bu ma mën a expliquer ci moom euh, dama mës a toog li ma maanaam fi ma ko njëkk a ràññee dama mës a toog euh, sama moo nekkoon sax sama première sama première gàmmu ji Tiwaawan ma àndoon ak sama ndijaay maa ngi koy nuyu di tonton Mass di sama rakku ma àndoog moom dem Euh, dem Tiwaawan bi ma demee fekk boobu maa ngi nekk xale comme ni ñuy wax xale yu judd ci ginnaaw mbay gisuñu ñu mbay mbay la ñu gëm koo ci waxal mooy maamam donc man ma ma teel a dégg waxu Serigne Babacar Sy mais bi ma demee Tiwaawan dama réer dama réer gisatuma sama ndijaay ma jekki-jekki euh, nit ñi bëri xam nga Tiwaawan ni muy bëree ma maa ngi ñaan ci barke Serigne Babacar Sy yàlla naa feeñ may dox di dox di dox di dox di dox xaw ma fu ma jëm mais biñ may gis bi ma sama ndijaay di gis mu may seetaan tonton Mass bi may jël bi may gisaat mu ma gis juste ci raw du Serigne Babacar Sy euh, su ma su ma su ma paasee loolu am na yeneen yoo xamante ne tey tabaarakallaahu fekk si na ma fa ah tey ndax tey euh, dañ doon ñaan yàlla di tagg yonent bi ñaan yàlla ñu bëgg ñu si si lu ñuy def donc mais way naa fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way naa fi yenn mag ñi waaye ba ma laalee Serigne Babacar Sy nag tabaarakallaahu laa xam ne laal naa laal laal naa ko jara laal

kéemaan la Sëriñ Babacar Si Malik seen maam la mu ne man bu ma rusul woon maam Mawdo ku ma woo ci foto ma wuyu la lii leer na maa ngi naan sëriñ Babacar defal na ma fu maramu ñu may joxoñ di ma tàllal loxo j'aime sëñ Babacar li defal laa dund waaw parce que nit da ngay am carte d'identité boo gisee euh, boo gisee boo gisee tey na ñu baal ma ci kàddu gi boo gisee bongo maan bi da nga naan bongo man baa ngi ne boo gisee Youssou Ndour da nga naan Youssou Ndour a ngi le boo gisee Abdou Aziz Mbaye da nga naan euh, Abdou Aziz mbaay bu bu bu bu Alaaji Abdou ngi ne donc li ma Serigne kër si defal mooy euh, boo gisee abu Aboubacry rek da nga naan Aboubacry bu Serigne kër si mu ngi ne donc loolu li ma li ma dund la moom laa bind ko way ko. Euh, ndeysaan snap di ko booy woy ci plus de cinq de vues sur YouTube mhm. woy boobu mhm. mais woy bi duñ ko jëlee ba tey est que xaaroon ko non xaaruma ko parce que bon ñun suñuy dugg studio di di génne benn produit dañ koy dañ koy dañ koy génnee nii rek jox jox nit ñi donc loolu ñun loolu moo ñu si daloon dañu génnee way wi rek jox ko sénégale yi mais damay faral di wax ni way wi tamit tëbuñu tëb rek way ko euh, dafa am fu mu jóge mooy euh, ki ñuy wax mbay donde moom moo ko wayoon ma ci euh, ziar bu baax waa kër mbay donde di ñaanal sama papa dut kenn mbay yàlla na yàlla fanam bu baax a baax donc moom moo ko wayoon ñun ñu jël ñun ñu ñëw reprendre ko te reprendre bi ñu ko reprendre tamit dafa am fu mu jóge way wi li tax ma reprendre ko ci gént la jóge xëy na peut-être musuma ko wax mais ci gént la jóge xëy na peut-être dinaa am dina benn jour dina am occasion wu gën ko expliquer euh, gën a expliquer lan fan la woy bi jógee réellement ah donc euh, vraiment mu génn tamit comme ni nga ko waxee boobu ba léegi mu def actualité loolu sant yàlla la comme ni nga ko waxee bëri woon na nag coow mais yaakaar naa ne euh, bu bonoon wala way wi bu neexul woon tey yaakaar naa ba tey du nekk actualité parce que way wi dafay mel ni ba tey tey tey tey tey laa koy soog a soo a génnee ay da maa ngi sant Serigne Babacar si bu baax a baax a baax wallahi lu nit coow coow coow coow coow coow coow wallahi du ma def dara parce que jéem naa fexe ba xale yi di dund Serigne Babacar si jéem naa fexe ba euh, tey euh, ku doon def leneen ba nga ko ne xaaral ma woo Aboubacry mu woyal ma Serigne Babacar si donc tey wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax di gërëmaat bu baax a baax Serigne Babacar si. Euh, waa way woowu sax mën naa ne moom moo moom moo tax ñëpp xam ma way woowu ba tey jii may waxee yow daf ma ubbil daf ma daf may ubbil ay bunt te li ma waxoon rek dama mës a toog coow li bëri loolu man leen way bi fii ak fa ñu jëmi même bu ma fi jógee sax way wi day mel ni tey lañ koy soog a tourné waaw parce que ki nu ko way la te te nitu yàlla la te du seetaan tamit nitam donc euh, ubbil na ma ay porte yu bëree bëri bëri bëri way bi mun naa ne man moo ma defar waaw moo ma defar bu baax a baax ci côté côté côté physique côté mental côté côté côté lépp voilà donc maa ngi ciy sant quoi bu baax. Euh, waa Aïda man dem naa fi ba Maroc pour tourne ji clip mhm. man dem naa ba Maroc xam nga pour lan pour rek. gën a valoriser ñiy tagg yonent bi gën a valoriser ñi nga xamante ne mooy tey mooy ñiy génnee clip ci yonent bi dem naa fi ba Maroc mu metti nag tournage yoo xamante ne tournage yu metti la ñu dem foo xamante ne xamuñu fa kenn ñu dem tournée ji muy metti muy metti lu nekk nag euh, dal nañu fa ñu ñëw tourné ko nit ñi kontaan nañ rek waaye ba ma laalee daal sëñ Babacar si daal <laughs> waaw wax dëgg yàlla boobu daal moom moom moom mooy mooy way bi ma way bi ma def daal ni ma mel wax dëgg yàlla sallallahu alayhi wa euh, teel am vision dama am vision parce que vision bi du lenn lu dul tey yonent bi la wax moom la ñuy tagg jéem naa liggéey ba ku ma xool xam ne Abu Bakri bu sëriñ baaba Sy ngi nii dama ko liggéey ba ku ma xool rek xam ne kii mooy waykatu sëriñ baaba kër bi may way yonent bi di way Serigne Babacar Sy bi murit bi bëgg ma xaadir bi bëgg ma ñaseen bi bëgg ma tijaan bi bëgg ma ba ci catholique bi bëgg ma donc ma ne pourquoi pas ku ci nekk ma jéem a jàng ci sa mbir euh, tàggkat yonent bi laa mais pour man yenn yi artistes itam moo koy def lu jara lu jara lu jara bàyyi xel la c'est-à-dire bi moom mooy moom mooy xool moom mooy nekk tey moom mooy moom mooy xool ne tey war naa mën a def lii xaar ma jéem ko essayer jàng def ko donc man mën naa ne loolu moo ma may tey ma mën a way wayu murit bi wayu tijaan bi wayu xaadir bi wayu ñaseen bi voilà donc moo tax yàlla soppi yooyu yëpp la ma dajaleel moo tax ku ci nekk rek waxoon naa fi ne naa dinaa fi way ba wayal catholique yi voilà donc tey pourquoi pas ma def ko parce que Sénégal benn bopp la hmm? ñun ñëpp ay doomi aadama lañu waaw waaw parce que wax naa la ko sànq gis nga Seydil Hadj Malick daf ñoo leeralal lépp daf ñoo leeralal lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp tijaan yi am nañu ouverture baax nañu xam nga te itam mën nañu yaatal tabaarakallaahu waaw ma gën a neex ci tarixa tijaan set set moo ma gën a neex ci tijaan euh, jullite duñu manqué waxtu yi juróom yi tamit ak wérdu salaatul fatiha bi ñu yor mais li ma gën a marqué marqué marqué ci ci ci ci nekk tijaan mooy set bi waaw man loolu lu ma marqué la. d'accord euh, wax naa ko sànq dama réeroon dama réeroon <laughs> waaw dama réeroon moo nekkoon sama première ziar ma ma dem Tiwaawan ànd ak sama sama ndijaay ñëwaat voilà donc noonu noonu la demee réer. sama première way tàllal naa sama ñaari loxo la. voilà tàllal naa sama ñaari loxo laa way ma ciy nuyu waa yonent bi ma ciy nuyu de passage Samboub ndax euh, moom tamit ku joué si sama carrière la tey bu ma eggee fii eh, waa Samb waa gars yi ñu ngi wax ñu ngi wax maa ngi dégg ñu naan <laughs> waa xam nga daf may wax wax bu am solo nee na ma man saam daf ma woo téléphone benn jour mu ne ma Abou Bakri fekk dañu gëj a déggante mu woo ma ma ne ko sëñ bi gëj nañ déggante mu ne ma loolu laa doon ñaan yàlla man tey ñaan naa yàlla yéen ngeen raw ma rawuñu ko mais euh, élément am lañ ko Sam waaw daf ñoo defar bu baax a baax tey tey itam ku ñu gis daf ñuy naw ku ñu gis daf ñuy bëgg loolu yëpp tamit barkeem ci la. dégg <laughs> <laughs> boo defuma dara barki alxuraanu karim barki Serigne Babacar Sy defuma dara rumeur yi may dégg yëpp ak critiques yi may dégg yëpp waaw mm. mais wax naa ko léegi léegi ti taalibi Cheikh la taalibi Cheikh la da man dama war a wanewu wanewu ci lan parce que lu baax la ñuy wane c'est-à-dire ma sol lu rafet xeeñ lu neex man dama bëgg sam bopp Aïda lébu laa nag te lébu ndakaaru laa ah, maa ngi nuyu bu baax imam Pape Samba bu Grande Mosquée euh, suma papa la hmm? euh, si sama côté côté yaay maa ngi ciy nuyu Ablaye Makhtar Diop grand Serigne de Dakar sama ndijaay la donc tey euh, suma ma wane woo lu war la te itam ki ma bëgg lan lañ ko lan maanaam lan lañ koy baaxantalee du sañse donc tey fi ku fi bëgg lu baax ñu ne day wane ku fi bëgg lu baax rek ñu ne day wanewu mais yaakaar naa ku ma xam dëgg dëgg dëgg dina xam ne ne abu Aboubacry du wanewu du du du voilà voilà man nii laa yàgg men quoi mooy dama yàgg bëgg lu baax mais maa ngi koy waxee fii franchement critique yi may dégg yëpp man duma def dara parce que xam la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mooy kii yàlla gën a teddal te dégg na lu ne euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dégg na lu ne donc pourquoi pas ma ne man léegi man man waruma dégg man wala waru war wala tey waruñu ma critiquer ayda man su ma doon def dara maanaam su ma su ma nekkoon ci beneen yoon bu dul way Serigne Babacar Sy bu ñu ma critiquer daf may mais yoonu Serigne Babacar Sy bii lu ma ci dal man lu ma ci dal dama ciy sant yàlla waaw damay dégg nag ay écho waaw damay dégg ay écho ay diw mu ngi wax lii diw mu ngi wax lee mais man lu ma dégg ci yoon bi rek man maa yàq way <laughs> non xam nga wax naa ko sànq xam nga en fait man nit ñi de nit ñi chaque jour ma wax chaque jour ma wax c'est-à-dire man dama bëgg ñoom ñu yeewu te maa ngi leen koy ñaanaat wala soit léegi ñoom nañu organiser benn xaw ma conférence de presse la ñu toog man ak ñoom ñu jàkkaarloo ñu wax ñu xam man lan laa bëgg en fait c'est-à-dire du folklore waxoon nañ fi waxu tabala kañ laa gëj a way sëñ Babacar ci tabala ah pourtant way voix sama voix rek laay laay woyee nit ñi di daanoo di xam nga mais loolu sant yàlla la nañu xam ne sëriñ Babacar si moom ko defaral c'est-à-dire pour man du folklore parce que nit bu daan def mariage di ko def musique bàyyi ko nee nañu woo ñuy tagg yonent bi daan def ngénte daan def anniversaire di ko def musique yooyu yëpp ñu bàyyi ko te man su ma ñëwee yàlla xam na ne lenn rek laay def damay ñëw rek tagg yonent bi su ma ñëwee ah, no ba <laughs> xam nga benn góor wax na ma ko nee na ma coow li li mu bëree bëri bëri bëri bëri bëri nii du dara lu dul bayre Serigne Babacar Sy moomu ëpp doole Aida barki Serigne Babacar Sy te pourtant nit ñi defuñu sax benn remarque am na remarque bu am solo boo xamante ne man sax sama bopp def naa ko man fu ma dem du ma fa yàgg benn way laa fay woy wala ñaari way dem te fu ma demee nit ñi dañuy yëngatu dootoo doot ñu ànd ak seen sago xanaa kon folklore mu ngi toll ci tey ñeneen ñi bu ñuy way nga gis kuy jooy xanaa kon ñooñ di jooy dañu war a wax ne dañuy dañuy ngistal bu dee folklore la parfois nga gis nit di way jékki-jékki nga gis ku daanu daw aw fële xanaa kon loolu folklore la mais man damay way ñit ñi di jooy ñit ñi di kontaan après ñu ne folklore la dama waxoon ni bu may ti sëñ Babacar Sy lu toll ni ci kër gi dama koy wayee noonu mais beneen way bu ma mënti way man Aboubacry Samb maa ko wax damay way ak tabala beneen way way bu mu mënti doon dama koy wayee tabala parce que xam la moo tax man basé wu ma basé wu ma ci way benn way kase c'est-à-dire basé wu ma ci way man ay recherche laay def ñan naa yàlla toll fii ay ñoom maxan seen toll vision boobu laa am musique religieuse laay def musique religieuse nag boo ko waxee musique daf ci am yoon ah, te musique lay def donc musique man maa ngi nit ñi ngir yàlla da ngeen ma comprendre xam ne en fait li ma bëgg mooy ñu nangul ma nañ li may li may nangul mooy tey su may way wayu Serigne Touba dinaa xool way bu mu méngool ci wàllu musique religieuse ma def ko mais du ma jël ay ay sindindi di ko di ko di ko di ko di ko way way way wayu musique comprendre nga wala ma jël ay xasida Serigne Touba di ko way wayu musique comprendre nga mën naa fent sama way def ko way ko way musique religieuse donc nit ñi nañu nañu nangu quoi te bàyyi jaxase bi en fait ils sont en train de ma de ma de di ma jaxase ak ak askan wi xam nga nañu nangu rek njëkkeewu ko fi te duma ko fi mujjee gis nga man sama ay woy ju ñoo fi nekkoon doon tagg yonent bi dem nañu ñun benn temps la rek dañuy dem tey man yemuma ci tagg yonent bi rek fi ma toog nii nii nii nii nii nii dama fiy liggéey ma leen di nuyu de passage ñuy CNM donc xanaa bu ñu nangoo tey nit ñi nañu am mental tuuti yeewu quoi. man sëriñ ma man ki ma jox tarixa cheikh mu ma ko jox en 2012 muy Serigne Maodo si ibnu Cheikh El Hadj Aziz man moom moo ma jox tarixa bi xanaa nag du ma taxaw di jël naan naan fu ma dox di wala tele bu ma dem naan jël naa wér du ma ko def. parce ci la ci la bokk dama koy dégg rek. waaw mais sant yàlla soom si yoonu sëñ Babacar lañ ma jiinees. Euh, ayda Euh, ok ok que man faramaçon la waa ji jiiñoon nañ ma ko ah. jiiñoon nañ ma ko mais faramaçon boo xamante ne tabaarakallaahu way juróom libéré wu ko ba léegi mu ngi kër papaam toog benn oto laa am ah euh, lu baax nag ci lañ lay nawee mu yére yére moom sama man ku xam rek xam ne tabaarakallaahu euh, damay sol lu rafet damay xeeñ lu neex donc bu fekkee loolu moo tax ñu may jiiñ faramaçon dinaa gën a nekk faramaçon nee naa la yoonu baaba Babacar si duñ ma jiiñ rek man bëgg naa waaw. Mhm. xaalim <laughs> uh-huh. Samb sam <laughs> papa ji <laughs> ndeysaan ñu baax euh, ci tagg yonent bi waaw man maa ngi koy maa ngi waaw man man non maa ngi koy gis mais dundu ma ko maa ngi koy gis mais dunduma ko damay faral di wax ne man Aboubacry aw ma concurrence ci ñiy tagg yonent bi parce que euh, Aïda gis nga samay clip gis nga clip ya fi woon ak clip yi yi am léegi donc man su ma ko gisee man dama ciy sant yàlla loolu rek boo ko boo bu fekkee seetlu nga ko ak ñi ka nga xamante ne tamit tabaarkalaa ñu ngi koy seetaan bu ñu ko seetloo rek nañ xam ne man aw ma concurrence ci tagg yonent bi ku def nag dama lay nangul ay dama dama nangul ñëpp barki Serigne Babacar si dama nangul ñëpp kuy tagg yonent bi nga mën man dama bëgg di dégg lu neex kuy tagg yonent bi di wax lu neex man dama dama lay sax déglu su ma toogee sama oto benn scène bu ma neexul ci tagg yonent bi ci ñuy tagg yonent bi waaw dama koy gis parfois dama koy gis mais pour man jarul sax explique parce que parfois ma dem ci benn benn jotaay ma gis lu désagréable loo xamante ne tey dama naan fii su ma sañoon du ma fi ñëw man nag kenn du ma woo fu ma demul kenn ma woo fu ma demul fu ma demee tamit gis loo xamante ne neexu ma dama am fulla damay jóg rek dem ñibbi waaw damay jóg dem ñibbi bàyyi fa wax bi bàyyi fa coow waaw man noonu laay def damay jóg rek dem ñibbi donc parce que du sonal kenn bëgguma ñu may dégg ci ay détails donc noonu la ma yàlla bindee quoi. gis nañ euh, ci tàggatu jërëjëf ci laaj bi parce que xalaatu moon que ne di ma ko laaj mais jërëjëf Tawfekh sama rakk la Tawfekh mbaay sama xarit la Tawfekh Mbaye sama confident la. confident moom laa tamit nit ku baax la nit la boo xamante ne tabaarakallaahu kenn du ko dégg ci ci ay détails waaw nit la boo xamante ne nit bu posé mu bëggal ma boppam waaye man itam ma bëggal ko sama bopp moo tax euh, ñu am benn complicité man ak moom euh, nit koo xamante ne daf lay wax ne la euh, tey bu bu doon bu doon bu doon nga nekk manager dagan ci man da ngay nekk sama manager sama wàllu solu teg naa ko ci sa loxo loolu nit ku la ko wax dese deselatu la dara te dañuy waxtaan loo xamante ne ay rakkam sax moom du leen ko wax yàlla daal moom ma booleek moom mu nekk sama xarit nag loolu ci milieu bi nag ci milieu bi laa wax sama xarit la man ñëpp samay waay lañu mais bokkuñu tarixa mais moom yitteem yëpp mooy tamit tarixa yëpp doon benn moo tax man nag moom ñu am boobu complicité man sama xarit la feex maa ngi lay nuyu sama xarit la wax naa ko sànq du ma jël tarixa bi taxaw naan jël naa tarixa bi jël naa tarixa bi parfois ma dégg ci critique yi ñu ne damay dégg dañ may wax ñu ne woy man li may def man maa ko tey dafa mel ni faalewu ma kilifa yi man fa may waxtaanee kilifa yi ñoom duñu ko fekkee wala ñu ngi tëdd di nelaw wala ñu ngi am temps di bind ayda nit ñi ñoo fi nekk di critiquer rek mais barki Serigne baaba si bu ma benn kilifa woon ne ma bàyyi lii ma bàyyi ko waaye nag dinaa la leeralal ba nga xam ne lii laa bëgg a def te xam naa ne dañ ciy accord ak man man tëbu tëb rek di dem ni ay ayda nit da ngay am kilifa te boo amul kilifa nag neex a bëmax ayda man maa ngi sant bu baax fa may waxe kilifa yi nit ñi duñu ko fekkee dama leen di woo su may def dara dama leen di tàggu mais nag dagg dugal fii lañ ko fekk ñi dañuy dagg rek dugal jaxase la ak àdduna bëgg la jaxase ak kilifa yi donc man daal man dama am kilifa wax nga fi léegi léegi koo xamante ne suma suma jur la muy Abdoul Aziz Mbaye euh, ñun bokk na ci ñu njëkk roy ci tagg yonent bi maa ngi koy wax sànq nee naa la artiste la roy naa fi Abdoul Aziz Mbaye roy naa fi Sam roy naa fi Pape Malick mbay indi naa sama eeru bopp roy naa fi roy naa fi tey ba bay bay roy ñeneen ci roy ay waykatu murit donc nañ man nañ man nañ ma nañ ma nañ ma nañ ma nangul daal te te te te parce que nag neexul quoi franchement parce que ñun dañu am ay mbokk dañu am njaboot dañu am soxna xam nga te vraiment ñun du ñu def dara même bu fekkee wax ji defuñu dara mais dina affecté ñeneen dina affecté suñu ay soppe dina affecté suñu ay nit man maa ngi leen di ñaan mooy képp koo xamante ne man Aboubacry Samb peut-être yaa ngi gis loo xamante ne neexu la bu ko seetaan bu ko sax commentaire xoolal zappel rek waaw j'appelle j'appelle parce que man sama yitte yëpp mooy def def loo xamante ne dafay dafay dafay bégal doomu aadama yi mais bu fekkee munoo munoo ko seetaan ba pare bëgg a taxaw di ci bind lu ñaaw wala bëgg bëgg bëgg bëgg ma jaxase ak kilifa yi kooku nag dama lay daal di bàyyi yàlla waaw ñiy wax ñëpp nag man man maa ngi leen di gërëm bu baax ñoom nañuy wax rek bàkkaar yi di fees bu bàkkaar yi feesee tiyaaba yi di ñëw rek parce que ay dama yéenewu ma kenn lu bon yéenewu ma man man maa ngi ci sama yitte ayda man du ma man aw ma jot gis naa ko wax ne il est il est de présentateur il est passé de de de de de de de lan de nabien à présentateur alhamdulilah parce que nit da ngay ñaan yàlla am avancement wala man damay sant yàlla te ñaan naa yàlla nag nekk nekk waykat passé waykat nekk milliardaire ah donc tey bokk ci milliardaire yu yonent yàlla Muhammad yi man dama koy ñaan yàlla donc daal na nit ñi di gën a wax nit ñi moom nit ñi gën <laughs> gën leen wax rek parce que yéenewuma kenn lu bon quoi yéen wax leen rek wax leen man ma continuer di bégal ñi ma war a bégal c'est ça sama mbëbët mooy ma bokk ci xam nga tey tarixa yi benn la bu ma nee dama bëgg a boole tarixa yi sax dafa am leneen lu muy nduru mais daf ci am noo xamante ne tey euh, dañuy nekk ci réseau yi di wax lu ñaaw ci sëriñu jàmbur buñ ko waxee buñ ko waxul yéen a koy gis man tey bu bëgg naa bokk ci ñi nga xamante ne damay jël ñëpp boole leen ñu doon benn ñi doon wax lu ñaaw bàyyi wax lu ñaaw tey jëm naa fexe tey euh, sama mbëbët bokkoon na ci tey ma bokk taal ma nekk taalibe cheikh bi nga xamante ne ci wàllu tagg yonent bi bokk nañ ci ñi koy valoriser te ñu ngi leen di valoriser bu baax a baax a baax ayda bo mais pour mais pourquoi pas waaw musuñu ko def xam nga xam nga xam nga man man man bokk naa ci ñiy tàllal loxo ay waykat naan leen kaa ñu def lii kaa ñu def mais da ngay gis ne tey tabaarakallaahu li yàlla xam doy na man waa xam nga xam nga su ma su ma waxalee yàlla rek mës naa ko demander mais bëriwul mës naa demander trois personnes ne leen kaa leen ñu def lii te bokkuñu tarixa mais da ngay gis ne bi yàlla xam daal doy na quoi ah, way day non non non non xam nga xam nga tey bu fekkoon tey dañu waroon def benn way man ak ñoom wala ñu waroon def benn way dañuy xool lu baax li Alaaji Malik wax ci Serigne Touba ñu way ko Serigne Touba li mu wax ci Alaaji Malik ñu way ko Alaaji Malik li mu wax ci Baay ñu way ko ba pare rafetal rafetal rafetal suñu ànd quoi mais pas ay gaaruwaale parce que li Alaaji Abdu waxoon rek góor yàlla yëpp lu ñu ñu ngi ko amee ci tagg yonent bi ku si nekk rek nañ la nangul ñi nga xamante ne parce que ñoom la fi yàlla teg tamit quoi qu'on puisse dire voilà donc loolu la quoi mais ay moom yaakaar naa xale yi ñoom ñoo ko xale yi sax léegi ñu koy bëgg a bàyyi voilà waxantuma la ñun ñi nga xamante ne ñun dañ dañuy tagg yonent bi di roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy way voilà xam nga bu gàmmu jotee nag dañuy way euh, comme ya ilahi wajsiyan abadan anna muhammadana muxtaar fil xidam sanniyan موضوعنا أن محمدنا مختار في موضوع يمي شبابة معبد الأسى هو من المسبي نوح الوضع صلي يا إلهي يوفى من أن محمد رحمانا أمول من دفلني لكنه لم يزل مود من جنجل كان يرجو من الله أونا خير منتصر لكنه لم يزل لا إله لا يرجو من الله أونا خير منتصر لكنه لم يزل لا إله لا يرجو يرجو مولونا يرجو من الله عونا خير منتظم waaw yii ak yeneen ayda ah yii yëpp yii yëpp yii na ah trois yi may gën a way waaw bokk na ci bokk na ci way yi yi nga xamante ne nit ñi dañu koy xaar Seydi Abubakar daan nga leen loolo ndeysaan daan kan Seydi Abubakar daan nga leen loolo ay way bëgg leen mbay kañ leen mbay joxo si mbay joxo leen mbay seen xol yi kenn du xalifa ay way mbay mente bi max na waa Seydi Aboubacar daanatina bokk na ci way yi nit ñi di gën a xaar mais way wi tam koy may sama frère Edu ah. aca alhamdulillahi zi hada sheikhu rabba mooy xayrul wujudi la zi axlaahu mawla aca naalal xilaafata yooyo yooyo naal bokk na ci gaa yi li ñuy xaar bokk na ci kamis li watal mansoor bi ilal ula yakunu imaman fil wal wara wal mansoor Euh, bokk na bokk na tam ci way way way yi ñuy xaar muy way bi nga xamante ne fental na ko sëñ Babacar Si te mu war a génn laaj ma lan la bismil ilahi may fent way maam xalifa Babacar ay bismil ilahi may fent way maam xalifa ki doon nu bi rasulu maam Cheikh ma moo doon gaayu baax ya fi woone xalifa Babacar ayda utul xilaafa moo ñëw ci moom xalifa Babacar kuy wutu xilaafa bokkul ku mu ñëw ci yow xalifa Babacar Sénégal man sama gi amul moroom Senego dun ko wutal moroom waaw exclusivité fii ngeen ko amee ah ma wayaale la ci bi <laughs> dinañ leen dinañ dinañ la ci way ah dinañ leen ci way donc way yi daal ak yeneen ak yeneen ñu ngi koy waaj bu baax a baax li ma gën a neex nag ci kër Babacar man Mansour mooy dalam te man damay yàlla xam na ko damay copier sax si moom du tontu du wax te bu waxee ñëpp ni est-ce que sëriñ bee baax sëriñ bi billaahi sëriñ Babacar kër si man man dey euh, dama koy ñaanal rek yàlla guddal fanaam way naa ko ci way wi maa ngi naan ko Niger ba maam Abdul Aziz amoon mooy eggali jumaa ji yàlla na matee ci yow ci ci barke Seydina ay discours yu am solo lay def ba pare nag du tontu moom waaw moom man moom jël naa référence léegi ci ci ci kër si man su lu waay wax duma tontu waaw man daal man daal man daal man daal du ma tontu kenn <laughs> voilà. ankay ankay kooku dinañ ko fental way incha allahu rabbi kooku tamit dañu koy ñaanal yàlla waaw message yu am solo lay génne te moom mu ngi ci daara ji rek mu ngi ci daara ji rek di liggéeyal maamam ma siy nuyu bu baax a baax a baax su may soppee euh, soppe su ma xarit di maam Abdou Aziz si bu Njool Fuuta hmm, bu baaba kër Si ah euh, euh, ak Cheikh Mouhamed Si maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax ñooñu su ma ay waay lañu Cheikh Mouhamed doomu xalifa bi la Hmm? maam Abdou doomu Serigne Babacar Sy la donc tey yàlla boole ma ak ñoom te ñuy njabootu sedd Seydi Hadj Malick man damay sant yàlla bu baax a baax a baax baax parce que man man njabootu Seydi Hadj Malick yëpp samay xarit lañu may nuyu bu baax a baax Pape Sidi Ahmed si bu Alaaji Abdou maa ngi koy ziar bu baax di nuyu suma benn waaye bu ñuy wax ngañ démb puy ñoom itam ñu baax lañu bu baax a baax. Hmm. waa déjà di di leen sant yéen bu baax a baax ayda maa ngi lay sant di sant waa Sénégal bu baax a baax a baax di sant euh, cadreur bi ah Abdou Abdoulaye maa ngi koy sant bu baax a baax waaye itam di ziyaaraat man damay yeesalaat sama cofeel bu baax à travers euh, Sénégal may yeesalaat sama cofeel ci soppe yëpp di leen wax ne euh, nañu ma ñaanal rek waaw nañu ma ñaanal ndax tey ñun lu ñuy def rek ñoom ñoo tax waa ay dañun dañuy nekk gis nga ñii dañuy nekk studio vingt trois heures ba huit heures du matin yombul yombul mais bu ñu koy def rek ñoom ñooy tax donc bu ñu koy def tamit di ci dégg ay wax ñoom loolu bu mu leen metti nañu xam ne am nañ jàmbaar yoo xamante ne tey du ñu dox ci daray ñàkk fayda waaw ñoom farata la ñuy dox dem ayda man maa ngi sant de maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Serigne Babacar Sy ak ni mu toll tey bu ma doon bu ma deful woon wala ma doon dox ci lu ñàkk fayda yaakaar naa gis naa ko bu yàgg ayda tey laa gën a sonn tey la samay soppe gën a yokk ayda tey la teraanga yi gën a yokk oh ayda maa ngi sant lu may ñu ma may ñu ma may ñu ma may ñu ma liñ ma mujjee may rek liñ ma mujjee may euh, ci présence su ñii yàggul dara yaa a même pas un mois ñu ngi ma ñu ma may ñaari terrain ñaari terrain lañ ma may ci barki Serigne Babacar Sy hmm? euh, di ma jox ay oto ci barki Serigne Babacar Sy donc loolu yëpp sant la waaw bu dee nag terrain yeeg oto yi ñoo tax ñu may jiñ faramason kon boog tabaarakallaahu <laughs> waaw waaw way wi ñuy tëjee ci gàmmu gi nag euh, Aïda est-ce que duñ ñaan ba beneen yoon rek ah? est-ce que duñu est-ce que duñ ñaan waaw noonu nañ ñaan ba beneen yoon parce que waaw dama jël ci rek parce que damay bañ a génnee lépp xam nga affaire bi xaw a defaat kii coow li coow li ñëwaat ci man waaw jël leen ci yooyu rek waa ndax way ay way riir la jël leen ci yooyu rek damay bañ a wayaa riir yi toppaat ba tabaarakallaahu <laughs> maa ngi leen di gërëm bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الذي ياتي من الإمام على نبي وعلي أيواي يغفى من ربنا دائما soppey sëñ Babacar wa waajibun taatul hadi mahabbatuhu kazatiba ulazi yati minal ala nabi wa ali jaxaay lu la tee de xacoo salama suñu loxo ci yonen la hël alaamaatu xaaloo inna azama atimmaalu sunnatihi min jumlatil imaalu neena ala nabi wa alayhi bayu sëñ Babakar mu ngay way naan rabbina dayman soppi loxo yi ca kaw walay sanafun ala xubbi bila ama liin wa tabi'an sunnatan muqtarita imanin ala nabi wa alayhi aywa salaam rabbina daiman gaañi loxo ci yonen suma bunu aw fin wasantun saaba yaa loxo loxo yi ci kaw saaba loxo yi ci kaw saaba Abubakar Sa soppe Sëñ Babacar Si soppe Sëñ Babacar Si ku nabi jaral ku mu jaral ay waay ku mu jaral ay ca ku nabi jaral Sëñ Babacar ku mu jaral loxo ya يا رسول الله لسان يا حبيب الله يا رسول الله يا جرم لسان يا رسول الله ما ويلا يا حبيب الله أيوة خبر ما مدينة أيوة ما دلا ويمان يا رسول الله أيت يا رسول الله لسان ma Maodo yaa nu xamal yonent yaa nu xamal yaa rasulallah waa ay waay Maodo moo nu xamal yonent yaa rasulallah يا ربي صلي على المحمود سيدنا وقبل شفاعته فينا ولم ندمي